ñoom ñi sàkku ci électorale bi ñu daal di euh, xool li nga xam ne kat mooy lay tax mbir mi euh, gën a leer ci élection bi nga xam ne moo war a am ci euh, février bii ba tax na ne daal ñoom nañu war a tëddee njaaxaanaay waaye itam fexe ba askan wi am ci ñoom confiance loolu mooy fukki organisation yi nga xam ne ñoo ñeel wàllum société civile ci Sénégal rawatina Africa Jom Center article 19 social sénégalais ñoom ñoo siife ak bataaxal ñoom ñu sàkku ci administration ak institution yi nga xam ne ñooy yor li nga xam ne kat mooy wàllum processus électoral bi ñoom ñu indi lu nga xam ne kat wàllum leeraange la ak li nga xam ne mooy élection yi ci jàmm ci Sénégal ñu ne mekku ne tàmbali nañ opération collecte nga xam ne mooy signature ci wàllum parrainage waaye ñu gis tamit ñenn ci ay mandataire moom jot nañ leen woo ngir ñu mën a retirer ca direction générale ci ya des élections ci li nga xam ne kat mooy seen fiche de parrainage Ousmane Sonko moom ñi ay administration électorale dafa lànk ne kat fiche de parrainage du ko ko jox ba tax na kuréel bi nga xam ne ñoo bokk ci waa société civile di ko ñaawlu ñoom nee nañu jëruñ dénk wàllum kaarange réew mi ne daal administration amul ti mënti mel mooy daal wala kële li nga xam mooy fiche de parrainage ba tey ñoom ñu ne daal ci élection yi gis direction général bi nga xam ne moo ko yor amul benn compétence di apprécier li nga xam ne mooy contentieux ci yaa ñàkkum nekkub candidat wala déet ci kenn